rahmatullahi wa rahmatullahi wa maa ngi nuyu ñëpp nee maa ngi nuyu ñëpp mënee su koo lim nee mënee su koo lim waaye boo boolee nuyoo bi ñëpp bokk ko waaye soo boolee nuyoo bi ñëpp bokk ko da noppal daf lay noppal sama jataay bii nee sama jataay bii jataayu cant la jataayu sant yàlla la sama digganteeg sama borom. ci sama digganteeg sama borom. jotaayu cant la. nee na jotaayu cant la. sama digganteeg sëñ ji bi mii. sama digganteeg seex ji réew. sama cant la. nee sama cant. cant la. cant la. sama digganteeg taalibe yi. ci sama diggante ak taalibe yi. lu ma xeeb xeeb sama bopp. lu ma xeeb xeeb sama bopp. xam naa ni tey. xam naa ni tey. man maay jëmmi diine ji maay jëmmi diine ji ci mbaaxum mag ñi ci mbaaxum mag ñi ak seen liggéey ak seen liggéey ak seen nose ak seen nose waaye bi ma nekkee loolu ba pare bi ma nekkee loolu ba pare xelum diine ji xelum diine ji ngañ meew alaaji ngañ saar nii la ngañ alaaji ngañ li mu xam. nee li mu xam. yaar dong la. yaar dong la. dolliwu ci leneen. dolliwu ci leneen. joxe teraanga. mooy joxe teraanga. ak wax ju rafet. ak wax ju rafet. su may xeexi. nee su may xeexi. du ma ko yóbbu. du ma ko yóbbu. su ma déree bëgg a xeex. bëgg a xeex. mu fecc saa pas-pas. day fecc saa pas-pas. ba ma tëlee ba ma tëlee xeex. ay. moom xamul aw ay. xamul balaa. xamul balaa. jàmm rek la xam. jàmm rek la xam. terle. terle ak wax ju rafet. ak wax ju rafet. dolliwu ci dara. nee dolliwu ci dara. terle nag. terle. amalu ko frontière. amalu ko frontière. mane na ko nu ne. mane na ko nu ne. yére yii mu sol. yére yii mu sol. soo ko laajoo léegi mu jox la. soo ko laajoon léegi mu jox la. kilifa ku nekk ci diine ji. kilifa ku nekk ci diine ji. sol nga mbubb. yàlla nga gudd fan. yàlla nga gudd fan. waaye noonu nga mën a mel. waaye noonu loolu. góor gu mag la. nee maam moo taal sax góor gu mag hmm. Hmm. jëf ji. nee jëf ji. li muy rëy rëy. li muy rëy ak li muy rafet lépp. góor gu mag góor gu mag la. góor gu mag. nee na góor gu mag. moo taawloo sëñ Ibrahima Seck. moo taawloo sëñ Ibrahima Seck. ma dem caat. nee na nekk am caat. góor gu mag. nee na góor gu mag. moo yar Bakar Sarr. moo yar Serigne Bakar Sarr. yar Baye Serigne Sarr. yar Baye Serigne Sarr. yar yar Baye Doud Sarr. yar Baye Doud Sarr. yar Bakar Sarr. yar Bakar Sarr. ba sëñ gënu ko. ba sëñ Ibrahima Seck gënu ko. mu yar sëñ alfa Seck. yar sëñ Alpha Mamadou Seck. ba Baye Doudou Sarr gënu ko. ba Baye Doudou Sarr gënu ko. porte parole na. porte nee na. ku mas yilif Thiénaba képp ku mas yilif Thiénaba yaa yilif Médina Sarr yaa yilif Médina Sarr moo ko wax de nee moo ko wax góor gu mag nee man góor gu mag gàcce ngalaama gàcce ngalaama tuuma topp ko fen tuuma topp maam Talla Seck fen du ci diine du nekk si diine ji du ci aada du ci aada moo dàqoon a liggéey ci réew mi. moo dàqoon a liggéey ci réew mi. da wax ni. da wax ni. sama jumaa ji. sama jumaa ji. bul jumaay madinatu rasool. bul jumaay madinatu rasool. sama jumaa ji. sama jumaa ji. moo ko gën a gore. moo ko gën a gore. ndax suuf si ma ko bayee. ndax ko sam. ci laa ko sam. Mhm. mu dem Fuuta. nee mu dem Fuuta. bàmmeelu Seydina Limaamul Mahdi yu réer. réer. dëkk ba gent. dëkk ba gent. mu fanaan fa. mu fanaan fa. ba asamaan set. ba asamaan set. daf ne ah. daf ne ah. man Mor Seck. man Mor Talla Seck. bàmmeelu bàmmeelu Seydina Limaamul Mahdi yu. bàmmeelu Seydina Limaamul Mahdi yu. warumaa réer. warumaa ñëw ba réer. ànd ak mag ña. ànd ak mag ña. boot loxo ya. boot loxo ya. temp bu jekk ba. temp bu jekk la. ba tolloog bàmmeel bi. ba tolloog bàmmeel ba. bàmmeel bi na tafeet. bàmmeel bi na tafeet. fett ba wër. fett ba wër ko. mu ni lii di mënta ñàkk. mu ni lii mënta ñàkk. yaram wa tàng. yaram wa tàng. Hmm. mu futti muuma. nee mu futti muuma. laaj peel. laaj peel. jalaat bàmmeel bi. jalaat bàmmeel ba. door a di jumaa ja. door a di jumaa ja. liggéey ko ci téeméeri junni. liggéey ko ci téeméeri junni. ba noppi. nee bi mu noppee. door a gor cuuti nee mu gor cuuti baay bur jaak baay bur jaak daa toog ci néegam ba mu muy ba yàgg muy xul baay banda ñang fekke ko baay banda ñang fekke ko mu ne man day ñang mu ne man day ñang man man man damaa jaaxle damaa jaaxle xur wii xur wii dox sama dégganteeg jànqeen. dox sama dégganteeg jànqeen. bukki yi nekk ci. bukki yaa ngi fi. di lekk jur gi rek. ñu damaa jaaxal lool. man daal jaaxal na ma. bay banda ñang ni ko. bay banda ñang ni ko. buur jaag. buur jaag. loolu jox ko suñ cana ba ba moo taase. jàmbaar ja. jàmbaar soo ko joxee. nee soo ko joxee. dana ko toj. mu ne ko dox ko. mu ne ko baax na dox ko. mu dikki ni góor gu ma mu dikki ni góor gu ma waaw sëñ cana ba waaw sëñ cana damaa fekk damaa fekke buur jaak buur jaak di ñaxtu di ñaxtu di xul xur di xul xur ñoo digganteem digganteem ak kees mu fees dell ak i bukki muy lekk ñuy lekk jur gi ñoo ngi lekk jur gi mu doo ko gor waaw doo ko gor mu ne ko waa ji wax nga dëgg mu ne ko wax nga dëgg man aw suuf mbarata fi ne mbarata fi ne sama bàyyi ko moom amari sama bàyyi mbarata sekk moo ko moom nee ko. nee ko bëgg naa ko. bëgg naa ko jël naa ko. jël naa ko su ma ko joxee. su ma ko joxee. danaa ko liggéey. danaa ko liggéey. yàlla na ko gudd fan yàlla na ko wér. xol yëpp kenn ku naan ne tey naan nga ba màndi. te lépp yaa yaa yaa nga ko waral. te lépp yow yaa ko fàggul. waaye ci boppam dee na ma. waaye moom de dee na ma. nee na ma na santal ma taali bi yëpp. nee na ma na nga santal ma taali bi ci seen taxawaay ci bés bi. nee na am nañu ngërëmal seexu Canaba. na ngeen yëg ni am ngeen ngërëmal seexu Canaba. am ngeen am ngeen ngërëmal Amari Ndaak. am ngeen ngërëmal maam Matar Seck. am ngeen ngërëmal maam Matar Seck. am ngeen ngërëmal Serigne Ibrahima na ba am ngeen ngërëm. loolu nag doy na yaakaar. loolu doy na yaakaar. xel ba. loolu kat naa dalal xel. kon nag bis kon bàyyi as bis ñi ma ko séqal ñi ma ko séqal muy sama rakk yii muy sama rakk yi ak sama doom yi ak sama doom yi pour lu ma waroon a wax lépp lu ma waroon a wax fu ma waroon a taxaw fu ma war a taxaw ñoo ko wax ñoo fa taxaw ñoo ma taxawal ñoo ma waxal rawatina Ngagne rajo yi rajo yi dépassé yi dépassé añ yi añ yi nga ne def lépp nga ne def lépp bi ma waxtaanee samay bokk nag bi ma waxee samay bokk sama rak sama doom samay doom ngañ ngañ yàlla sedd na ko bu yàgg yàlla sedd na ko bu yàgg ndax sunu maam ramata sama maam ramata Cissé ak sama yaay ak nekkoon benn dañoo nekkoon benn alfa ramata wax ni alfa ramata wax ni yàlla naa dund ba yor yaay ba yor yaay ak sama yaay dañ daan weerante naan. dañ bi sekk. sëñ bi ndax suñu ramataa ko jur. soxna ramati siise ko jur. ndax ñu màgg jooma ko jur. am ñu jógee dëkk dëkk ba ñëw. am ñuy jógee dëkk ba ñëw. ramata yem ci yaa ramata. nee na yem ci yaa ramata. mu ne màgg jur ko maa ko jur de. mu ne ah sëñ ji bi ko maa ko jur. kooka dellu ni la waxoon ko. kooka dellu ni waxoon kon ngañ dafa yàgg am cër ci kër gi. kon nag. kon décoré bi ñu ko décoré. décoré bi ñu ko décoré. dama ko jox beneen digal. nee na jox naa la beneen digal. ci gàmmu gii. ci gàmmu gii. ak programme. bu am ci kër gi. bépp bu am kër si na lépp sa loo seet. nee yàlla mu jaadu. mu yàlla mu ñaana. ak say daam. doom. ak te man du ma si doon dara. te man du ma si doon dara. dama doon xaar ba sama baay toog nag. dama bëggoon xaar ba baay asan toog. waaye nag diisoo naa ci moom it nag. waaye diisoo naa ci moom. booba sañu ma ko woon a toogul. te toogul te jox ma ci ndigal. te joxewul ndigal. waaye gis nga li mu jëkkee. nee na gis nga li mu jëkkee. présentant Amary Ndack. nee na représentant Amary Ndack. maam Talla Seck. maam Momar Talla Seck. présentant. présentant. mu jox ko Ngañ Sarr. mu jox ko Ngañ Sarr. waaye lu ma ko joxe kay. waaye lu ma ko jox. day fekk day fekk mu fondation ma nee na Baye fondation mu ñëw rek teg ca kaw kon nag nee kon moo ma wanu yoon Baye Ass Seck moo ma wanu yoon kon nag bis na ko tey daal bis na ko tey ku dem na nga yóbbaale ku dem na nga yóbbaale alaaji mooy coordonnateur kër Sidaara Seck jox na ngañ sa baatu baatu kër gi lépp jox na ngañ sa baatu kër gi lépp ci lu ñuy liggéey lu ñuy liggéey ci gàmmu gi gàmmu gi mbaar mi mbaar mi lu xew ci kër gi ak lu xew ci kër gi man daal man daal naa waxtaane ki ndejaayam dinaa moom daal na waxtaane ki ndejaayam waxtaane ki rakkam soo waxtaane seen man lu lu ñu na ci lépp loo jubóog seen yaay ak seen rek alaaj lañ boo ñëwee ma valide tey da xam ba ma koy laata waxit nag laata koy wax waxtaan na ci ñoom nag ah waxtaan naa sama rek ndax man moom ma dara. man moom ma dara. ndax lu may am sama rek ko moom. lépp lu ma am sama rek ñoo ko moom. kon lu ma yëkkati. kon lépp lu ma yëkkati. ba ba ñëpp di ko dégg. ba wax naa ma ak ñoom. wax naa ak ñoom. ñu bokk pas-pas. ñu bokk pas-pas. bokk yeewu yeewu. ba mën génn mu génn. ba loolu mën a génn ma génn ko. bis ni ko tey daal. bis ni ko tey. lu xibaar rek daal. lu xebati. yaa yor xalaat yi. nee na ngeen saar xalaat yaay. sous préfet. nee na sous préfet. sant. ci gàmmu gii. ci gàmmu. moo nu gunge. moo nu gunge. moo nu toppatoo. moo nu toppatoo. ba yóbbu nu kees. nu kees. ñu def CRD. ñu def CRD. li nga gërëm ci sous-préfet ni nga gërëmee sous wallaay moo moo Talla Diagne mii moom monsieur le maire ak service bi ak service bi ñoo jiite lépp ñoo def lépp keroog seet seetal bi keroog seet seetal bi waa Kees waa Kees waa Xumbal waa Xombal waa gaaru Canaba. ñoo mobiliser lépp. ñoo mobiliser lépp. ak seen i matériel. bale ba set bi bale ba loolu lépp nag. loolu lépp. yaa ko moom yow lañ ko defal. yow lañ ko defal. kon boo nee. kon boo santal ma sous-préfet. santal ma sous santal ma taalibe santal ma sa loolu danaa sawar lool. loolu danaa sawar. kon nag. nee kon suñu xol sedd guy. suñu xol sedd. sëñ Papa Seck nee sama doom ji sëñ Papa mënu ma koo xool sax. man mënu baax a baax. ndax bàyyi mu baax ndax sëñ sama xarit. xam nga li dàq ci àdduna bokk ba noppi xaritu bëgg. bokk ba loolu moo boole sëñ ma nag. su taawam toogee. Ah, toogee ba mu jógee Thiénaba Kajoor. bi muy jógee yaakaar si ma dikkee. lépp lu kees lañ daje. ñu àndoo ñëw. ñu àndoo ñëw. ay teraanga yu mat kon man sama xol sedd na. li sëñ daan wax fii. lii sëñ Ahmad daan wax. ko fii. sëñ ñaan wax ko. Ngagne mi wax ko fii. waaye man lañ ko waxal. kon nag. war naa leen a gërëm. wane la ñaanal. wane la ñaanal. waaye ni. waaye ni. képp ku gàmm gi tax a jóg. képp ku gàmm gi tax a jóg. ku sori ak ku jege. ku ak ku soo agsee. soo agsee. yàlla faj na sa aajo. bilaa yàlla faj na sa aajo. nee mu ngi gërëm Mortala Seck Mbuur. mu bàyyi Ousmane. loolu la jëm. ndax Mortala Seck Mbuur. Mortala Seck Mbuur. baayam. baayam. Seck Seck boolewul. Seck boolewul. xam nga bu ñu ñibbi kokki tey. nee maa ngi ñoo may kon nag. kon sëñ Mourtala sant na leen. sëñ Mourtala maa ngi lay sant. naa ñëpp. maa ngi lay gërëm. maa ngi yàlla fi aju yëpp. kenn kenn ku ne. nee aju ya nga bàyyee. aju boo bàyyee. yal na yàlla ginnaaw la. yal na lépp nag. tàngooru jamono bi nag. tàngooru jamono. yal na yàlla mocc ko. yal na yàlla mocc ko. indi ngelaw sedd guy. mu di ak wér nag. mu nekk nag wér. ak wérle. ak yàlla yàlla taas ñu ci xam naa ne kàddu gi moom kàddu gu gàtt lay. kàddu gi du mën gudd ndax kàddu teraanga da koy wax say bàyyi toog say maam di la dégg ah. albarakatu lil mutabarakin. ndax ñi jiitu wax ñëpp. ci ay kàddu. dañoo sàkku ñuy gàttal. dañoo sàkku ak gàttal ci ñoom. ndax kilifa yaa ngi nii toog. ndax kilifa yaa ngi nii toog. Ah, di sunuy kilifa. nekk sunuy wajur. Ah, di sunuy lépp. nekk ñëpp di suñuy kilif. fas yéene a sakkanal. te ñu fas yéene leen sakkanal. kon toogaay bu yàgg bi day metti ci. kon toogaay bi yàgg bi metti na ci ñun gune yi. rawatina ñoom mag ñi. ak xam ne dañoo amee ñu yore ay feebar ne ci sunu biir. yooyu daw ak. daw ak. war naa tax ñu mën a bañ a guddal. war naa tax ñu gàttal kaddu gi. bokk jullit yi sëriñ baa ngi nuyu xalif général maamam Baye Assane Seck siyaare bu baax di ko siyaar bu baax. jox ko wàccuwaay bi ko yàlla jox. di ko ñaanal li ko ñëpp di ñaanal. na yàlla guddal fanam amiin. na yàlla dolli wéram amiin. yàlla mottali ay yéeneem. nuyu sunu maam ñaaxa sekk. nuyu sunu maam ñaaxa sekk. di ko siyaar bu baax. di nuyu sunu maam it. di nuyu maamam. fa tabaarakallah Badiane Armane Seck. maa ngi koy siyaare bu baax di ko siyaar bu baax. jox ko wàccuwaay bi nga yàlla jox. di nuyu nag sunu baay ji di Seck. di nuyu nag macha allah sunu baay ji di lu Seck. nga xam ni moom mooy xalifab sunu maam Ibrahima. nga xam ni mooy xalifab sunu maam Ibrahima Seck di xalifab Seck yëpp kenn nangu. nga xam ne gàmmu gi ci loxoom la ko yàlla. nga xam ne gàmmu gi ñu toog ci loxoom la ko yàlla jaar. koy dawal ay at yi at yu yàgg lool. mu koy dawal at yu bëree bëree bëree bëree bëri. yal na gën a yàgg. bokk ko ak rakkam. bokk ko ak rakkam yëpp. bokk ko ak mbokki taalibe yi. bokk ko ak mbokki taalibe yi yëpp. bokk ko ak mbokki jullit yi. bokk ko ak mbokki jullit te booba ba léegi lépp a ngi ne dégg di dox. kon ñu ngi um sa doom ak lay ñaanal yàlla. yàlla dolli wér gi. yàlla dolli sutura bi. yal na yàlla yàggal taxawaay bi. Ah, mënoon na maa lim ay rakkam yëpp. mënoon na maa lim rakkam yëpp ndax samay baay lan. tama nangu. waaye ngir gàttal rek. Eh, ngi nuyu ñëpp di. siyaar ñëpp. ba ci sunu bi nu uuf ñu tudd nu soxna Xadiba way jur alaaji ngañ saar mu baax mi toog. bàjjen Xadi sëriñ baa lay nuyu di la siyaar bu baax. di nuyu ku mel ni sous préfet mii toog Babacar Wade ku yaru nekk suñu soppa ja démb di suñu xarit ak monsieur le maire Alaaji Taala Jaañ mu baax mi baay sëriñ Alassane Niane. ak sunu baay sëriñ Alassane Niane chef de village. nekk gi mu nekk chef de village. ak sunu baay sëriñ Abdou Ñing. ñëpp sëriñ baa ngi leen di nuyu. jox leen wàccuwaay bi leen yàlla jox yàlla yàlla doon leen a sàmm. di leen xamal ni kontaan nañu. di leen bi. ñun ay doom lañ. ñun ay doom lañu ci yéen nangu nañu. ñun ay sët lañu. ñun ay sët lañu nangu nañu. ni ko Alaaji Ngañ Demba Sarr waxe waaye nii ko Alaaji Ngañ Demba Sarr waxe ak ni ko ñëpp waxe ak ni ko ñëpp waxe waaw ah, cër bii cër bii la boo xam ne cër la boo xam ne waaw ah, cërub sëñ ma ah, sama sëriñ la de sëriñ ma dikka sax borom yàlla nee na mu àndoon ko Baye Jibril mu àndoon ko Cheikh Jibril mi toog àndoon koog njaboot gi àndoon àndin wu rafet. àndin wu rafet. fa tabaarakallah fa tabaarakallahu. gàmmu gii di gàmmoom. gàmmu gii di gàmmoom. te it yaakaar naa ne jekk na jaadu. te it yaakaar naa jekk na jaadu na. ndax sëriñ ma dikkee maam Ibrahima mooy sëriñam. ndax sëriñ ma dikkee kat maam Ibrahima ginnaaw ba muy bàyyam mooy sëriñam. moo ko jox weer moo ko jox salaatul fatiha. fa tabaarakallaahu ñaanal ko ba tey am ci moom yaakaar ah, sëriñ ma ma dikkeet bu fekkee am na idol bu dee am na kenn ku muy roy ah, yaakaar naa mooy sunu maam Ibrahima Seck saf ko lool Baye saf sëriñ ma digg ba nuroog moom sëriñ ma digg bëggoon ko lool sëriñ ma digg roy ci moom ay jikko yu bare bare bare bari te yépp yàlla jubal nuyu ba gën a sell te mooy nuyób lislaam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bi alxalifa almuazzam alcheikh xasan Seck ak suñ mag di suñ xarit di suñ kilifa muy Cheikh Ahmed Dame Seck ñu nekkoon ak moom alqaahira mu nekkoon suñ mag di ñu teete ci yooni njub di ñu teete ci buggu xam-xam di ñu teete ci sàkku xam-xam dañoo ñëw tey indil leen nuyoo xalifa cheikh Mouhamadul Mahi ibnu cheikh Ibrahim Niass mu jëm ci mbokkam jëm ci soppeem alxaaji Xasan yàlla yàlla yokku leeram yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla may wér yàlla na yàlla xoyofal en bi ci kawam yàlla na ko yàlla may lépp lu muy mébét ak lu ëpp li muy mébét yàlla na ko yàlla yombalal dëgg-dëgg Cheikh Mouhamadul Mahi nee na kontaantaan kon euh, mbégteem ci teraanga ju mag ji ngeen xam ne moom ngeen moom ngeen ko teralee su tuddee bés bu mag bi Cheikh Ibrahim Niass yàlla rekk am seen fay waaye daal wane na itam ne kóllëre nga xam ne moo fas woon ci diggante nit ñu baax ñu waajur yu baax yi muy cheikh alxaaji ibrahim Seck mi nga xam ne ñëwoon na Medina gane si mbokkam cheikh ibrahim ci année yu yàgg muy année soixante-dix kóllëre googu nga xam ne moo fasoon ci diggante mag ñi te dara taxutoon ñu fas ko lu may yàlla dëgg-dëgg kóllëre googu sàmm ngeen ko dëgg-dëgg sàmm ba li nga xam ne moom la alxuraan di wax di ko mellalee jullit ñi leen ci yenn jullit ñi di leen di leen tàgg ci loolu di ñaax bépp jullit mu aw ci yoon woowu dëgg-dëgg Cheikh Mouhamadul Mahi mu ne lii ngeen def loolu rek la koy fàttali muy laay jee yàlla di wax naan minal muminina rijaalun sadaqu ma aahadu llaha alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila am na ci leen jullit ñoo xam ne lañ dëxalanteeg yàlla matal nañ ko sëkk dëggal nañ la nga xam ne moom lañ dëxalanteeg yàlla mooy sàmm lépp loo xam ne daf leen di gën a jegeel yàlla moytu lépp loo xam ne daf leen di sorul yàlla te itam sàmm kóllëre yi nga xam ne moom lañ fasante ci yàlla ñii jiitu nañ muy mag ñi am na ñu jiitu mu ne waaye ñi des soppiwuñ dara ci kóllëre gu kon lii yàlla na ko yàlla saxal dëgg-dëgg ci turi Cheikh Mouhamadul Mahi Khalifa tey muy xaadimul umma ci laay wax maa ngi waxee itam turi kilifaay pays bi yëpp muy imam Cheikh Tidiane Ali Cissé muy ki topp ci moom muy Cheikh Mouhamad El Amin ibn Ibrahim ibn Cheikh Ibrahim ak mboole mi rakkam ñu ngi leen di gërëm ci teraanga ji tey itam di wane ne ñoom itam ni ngeen jàppee ci kóllëre gi nii ñoom itam noonu la ñuy jàppee ci kóllëre gi te incha allah lii ay jéego yu gën a dëgër dana ci topp te xalifa bi am na yéene pour ñoo itam ñëw ziyaara si leen. kaddu yi. kaddu gi ñuy yëkkati. kaddu gi Baye Jibrilu la. kaddu gi Seex Jibrilu Sekk borom yaaram la. kaddu gi gàtt lay doon. kaddu gi kaddu gu gàtt lay doon. man jëlaguma kaddu. Baye Cheikh Thiénaba ñëwagul. ndax kàddu Cheikh Thiénaba laa yor te ñëwagul. yàlla dafa dogal ni. yàlla dafa dogal ni. njabootu Seydina Ibrahima Seck borom yaara. ci njiitalu Baye Jibi. ci njiital Cheikh Jibrilu Seck xalifa borom yaara. wàcce ko ci imaamu ratib. wàcce ko ci rakkam imaamu ratib Serigne Cheikh Amadou Seck. sama nijaay Serigne Diop Dior Seck. rakkam nijaayam Serigne Ahmad Diop Dior Seck. wàcce ko ci sëñ Ahmad Daam. wàcce ko ci sëñ Ahmad Daam Seck Ibrahim. Serigne Samba Gasso. wàcce ko ci Serigne Samba Gasso Seck bu Seydina Ibrahim. wàcce ko ci chef de village. wàcce ko ci chef de village Serigne Alxasan Ñaane Seck. wàcce ko ci sama nijaay Serigne Cheikhou Wali. wàcce ko ci nijaayam Serigne Cheikhou Wali. wàcce ko ci suñu nijaay Serigne Ali. wàcce ko ci suñu nijaay Serigne Ali Seck borom yaaram. ak maam Serigne Niass. ak maam Serigne Niass seen rakk. délégation bi jóge Medina Baye. délégation bi li ñuy wax ak ñoom. li ñuy wax ak ñoom. xam naa duñ ko fekke xam naa duñ ko fekke ndax ci suñu kàddu lay dugg. ndax ci suñu kàddu lay dugg. wante Baye sëriñ Thiénaba. waaye Baye Serigne Thiénaba. cër bii ñu jox Medina Baye. cër bii ñu jël jox ko waa Medina Baye. kër gi jubluwun ci lenn. kër gi. jubluwuñ ci leen lu dul feddaliwaat kóllëre yi démb yi lu dul feddaliwaat kóllëre yi démb yi ndax ñu ngi ci juróom fukki at ak benn ndax ñoo ngi ci juróom fukki at ak benn ren lañ def invitation d'honneur ren lañ mos a def ci gàmm gi invitation d'honneur ñu bëgg xale yi jàngaat kër gi li ne ci seen diggante mag ñi li taxit ñu def ko mooy bëgg xale yi ci kër gi ak ña ca Medina Baye ñëpp jàng diggante ñaari kër yi ak wëllëre yi ci dox bi lii xewee. bi lii xewee. ah Baye Cheikh Thiénaba. Baye Cheikh Thiénaba. dafa yónnee ay teraanga. dafa yónnee ay teraanga. teg ko ci sama loxo. teg ko ci sama loxo. ni nañ ko ko joxal xalif général ko ko joxal xalif général bu Medina Baye. teraanga yaa ngi nii. teraanga yi mi ngi nii tege. Baye Cheikh Jibrilu Seck. Cheikh Jibrilu Seck xalifa Seydina Ibrahima Seck borom yaaram. ak ay rakkam yépp ak mboolem ay rakkam góor jigéen. woo ci néegam. woo ci jox ma ay teraanga. jox ma ay teraanga. mooy walis wee ngeen di gis. lépp ay yére la. li ci nekk lépp ay yére te yére yu am solo ci nekk. te nag yére yu am solo ci nekk. mu ne nañ ko ko joxal mbokkam. mu wax ni nañ ko ko joxal mbokkam. nañ ko ko joxal xaritam. nañ ko ko joxal xaritam. nañ ko ko joxal wëllëreem. nañ ko ko joxal wëllëreem. sëñ Mouha Cheikh Mouhamad al Mahi. Cheikh Mouhamad al Mahi Ibrahim. di raayal xadaral faydata tijaani. raayal xadaral faydata tijaani. kaddu yi foofu rek la jëm. kaddu yi fii rek la jëm. Baye Jibrilu nee na. Cheikh Jibrilu Seck borom yaaram nee na. Serigne Khalifa Ibrahima. Serigne Khalifa Ibrahima Seck Alpha. na ñëw jël benn kado bi joxal ko ko sëriñ bi. dafa bëgg mu ñëw jël benn kado bi joxal ko ko sëriñ bi. beneen kado bi ci des. beneen kado bi ci des. Cheikh Ahmad Tidiane bu bàyyi sëriñ Mamadou li Seck. Cheikh Ahmad Tidiane Seck bu bàyyi sëriñ Mouhamadou li Seck. mu jël beneen kado bi joxal ko ko sëriñ bi. mu beneen kado bi joxal ko ko sëriñ bi. beneen kado bi. beneen cadeau bi ci toog. Serigne Baye Diop Seck. Serigne Baye Diop Seck moo bàyyi Serigne Talla xaar sang ba. toogal fi ay magam. toogal fi ay magam. mu jël benn bi joxal ko ko sëriñ bi. mu benn bi joxal ko ko Serigne bi. beneen bi. beneen bi. sëñ Ahmad Daam. Serigne Ahmad Daam Seck Ibrahim. toogal fi ay magam. toogal fi ay magam. ak Serigne Cheikhou ak Serigne Cheikhou Amadou. ak i rakkam. ak seeni rak. fa tabaarakallah fa tabaarakallah. ndax Serigne Aliou bi muy wax léegi. ndax Serigne Aliou Niass bi muy wax léegi. wax na seen kóllëre. wax na seen kóllëre ak Serigne Ahmad Dame. kon Serigne Ahmad Dame. kon Serigne Ahmad Dame Seck Ibrahim. benn bi sëñ Jibrilu nee na. benn bi Seex Jibrilu Seck nee nga ñëw joxal ko ko Serigne bi. nga ñëw joxal ko ko Serigne bi. beneen bi ci des. beneen bi ci des. doomam. doomam di sëñ Pape Mourtada di sëriñ Pape Mouhamadou Mourtada Seck ma dikkee nee na beneen bi nag ko joxal sëriñ nee na beneen bi mu joxal ko ko sëriñ kon fa tabaarakallaa kaddu yooyu rek lañ doon yëkkati kon lii rek mooy ay kaddu lañ doon yëkkati ci des su bàyyi sëriñ bi ñëwee li ci des nag ba xalif général ñëwee ba toog lu mu nu jox ndigal lépp lu mu nu jox ndigal ci kaddoom ci ay kaddoom ci ay kaddoom ñu yëkkati loola dinañ ko yëkkati bu neexee